jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre fii ci People 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaan ci sunu réew mi di ñaan sunu mbokk yi nga xamante ni caabi da leen a féete ginnaaw yàlla sunu borom dafa leen jàmm ba ñu ñëwaat ci seen njaboot di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla da leen a jël ci cooba dem yàlla sunu borom euh, yërëm leen daxaar leen àjjana di nuyu sunu kilifa diine yeeg sunu kilifa aada yi ah tey nag ñu am mbégte ak contentement ci ñëw fii ci sunu papa. koo xamante ni vraiment mën naa ne tey bokk na ci ñi nga xamante ni chaque jour dañu leen doon suivre doon yàgg a rêvé naan kañ la ñuy toog ak ñoom boobu ñu ngi nekk ay tout tàng kon nag tey bu yàlla defee ñu ñëw ba fii mu recevoir ñu kon dañ koy sant bu baax a baax di ko ñaanal mu di suñuy Papa Lamine Ndiaye tey ñoo la seet si waa People 221 avec toute l'équipe di la dalal di la wax nga nuyoo ak jaam ak salaam ci fii di People 221. salaamaaleykum wa rahmatullah jamatul muslimin mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ci jiital sëriñ si ak ci confrérie bu mu mënti nekk di leen sargal di leen tatagal jox leen seen wàccuwaay. damay njëkkee ci li nga xamante ni daanaka mooy sortie bi nga xamante ni euh, kii di neex def na ko démb euh, moog sunu benn jigéen euh, sortie boobu noonu bi nga ko seetaanee ban jàngat nga ci am ci digganteem ki nga xamante ni mooy vie Ba. xam nga des fois. ñu laaj la ay laaj yoo xam ni mu fekk la ci état boo xam ni la ngay tontu mën nga ko sax ñàkk bañ natt walla xam parce que bu boobaa mer nga te lii dikk sa rek moom ngay wax mais nag li chinois bi wax avant de parler il faut tourner la langue quinze mille fois dans la bouche mhm. parce que waxu ëllëg boo bañee mu dab la donc na nga ko seetlu nga xam na lu wax bu jibee nga tontu ko rek yow yaa bëgg yokk wax ji mhm. man nag je leur conseillerais ñoom ñaar ñëpp muy Vieux Ba di sa neex samay rakk lañu sincèrement bu doon sama sago duñu fantasir mhm. maanaam duñu réeroo mhm. euh, ndax réeroo gënulu kenn baaxul ci groupe baaxul individuellement waxatuma la ci groupe mhm. ndax sànneex tëkku yi mu tëkku Vieux Ba ba nga ko déggee ndax am nga ci loolu metti waaw xam nga man daf ma jaaxal mais dañu faral di wax ni wax mooy indi wax. Sanekh mhm. ba muy wax loolu am na lu ko metti lool. Mhm. parce que li mu lim yëpp dañoo bari. Mhm. te ku jaar ak nit foofu. boo déggee mu wax wax ci dem leneen parce que bul fàtte ni li mu wax moom Sanekh nee na metti na waa këram. famille ñang famille Guèye am na daal lu ci lim man seetaan naa fii li mu wax. mais ñooñu mu metti ñépp boo dégloo waxam daanaka ñoom la doon waxal. Mhm. waaw cela veut dire que ni nekkul ci apaisement man bu ma doon moom dinaa ne ko na ànd ak dal na continuer dal gi ñu ko xamee. kon da nga jàpp ne sortie bu mu def waru ko woon def. bu doon man de du ma ko def. Mhm. ak lu mënti xew du ma ko def. déggu ma wax ne ëllëg du añ du reer waaye lu ma ci sedd la xëy na moom ci biiru waxam sax. séntuwu ci kii yooyu parce que gis naa ko mu nooy daan na nag léegi nag dinaa wax. Mhm. donc jën na décision boo xam ne nii irrévocable la mais amul lu dul mujj ci waxtaan. Mhm. amul ci àddina lu dul mujj ci waxtaan. Mhm. ci waxtaan boobu noonu lañuy ñëw mu mel ni yow ak Sanekh. diggante bi coow li amee ndax ndax diggante waat ngeen ci ba waxtaan ndax dégg nañ mu ne xaalis bi mu la yoral doon mujj na la ko fay. waaw. loolu am na mais jotuñu woo wootante ci diggante bi. boobu ci diggante bi boobu ba léegi déggante woo ak Sanekh. non non bi ma daal njëkk a déggante moom ci diggante bi gannaaw ba mu waxee ci rajo ba. Mhm. Euh, télévision. ak mhm. Yves euh, guddi gi. Mhm. vraiment déggante wuñu ci diggante bi xam naa ni loolu. moom ndax jàppoon ne dafa mer moo tax. wala wala loolu moo war a tax dégg déggante ndax problème bu amee buñ ko réglé normalement war na la woo jégalu la ci retard bi amoon. même même bu ko deful. Mhm. yaa ngi dégg man nee naa du fa nekk di gasi pax. Mhm. li ci amoon solo. Mhm. mooy jot na ñëw na gis ma wax ma ne ma dinaa la ko kii léegi léegi léegi sa numéro bii est-ce que am na wari ma ne ko non balaa ñuy wax affaire wari léegi nañu wax ci li ñuy jotli woon nit ñi. dégg nga ba ñu dégg ko te di xaar ñu jëfe ko euh, mu ne ma loolu ay wax la woon rek mhm. nañ ko bàyyi gas ko suul daal mhm. man sama mag nga te moom ngay doon ba faw te jox naa la respect boo xam ni suma sax tonto nga mhm. wax ji daal sa xaalisa a ngi nii teew jël ko rek ñu suul wax ji mu jeex tàkk journaliste bi mu bi mu kii bi mhm. doon laajte mhm. moo wax loolu mhm. moo ni ko waaw comme Père Lamine dégg nga génn na wax ñeneen ñi génn wax maa ngi leen doon déglu bu fii moom lu fi waay wax mu ma yéen sax naa leen ko donc du inventé wu ko vidéo yi bëgg ngeen ko xoolaat fii di ngeen mu mel ni kon journaliste bi nu mu waxee dafa mel ni yaa influencé ñeneen ñi pour ñu wax non non nekkuma fii di influencé qui que ce soit sama problème c'est assez particulier sañ naa laaj loo xam ne nii yoral nañ ma ko te teg ko ci dëgg. léegi ginnaaw bi nga xam te ne nii wax nga ne sànneex warul woon génn def sorti boobu. Mm-hmm. vie ba ci boppam ak li mu jot a séq ak sànneex ak ñoom ñaar seen diggante nu mu yàggee ndax jàpp nga ne moom tamit waroon def sorti ba wax ji di àgg fii nii yëpp. pour bañ a naa feq mm-hmm. loolu bu vie ba ñu ñëwoon tey seetul lenn mu ñëw na ma grand kat. nangam ak nangam dégg naa ko ci kii man may woo sax sa neex. Mhm. ñu toog bokk ko ñaaroo wala ñu ñettoo ko wax ji jeex man ñëwuma ci àddina bokk ci benn corporation comme ñëpp ay artistes lañu. Mhm. seetuñu ku mën ku mënul ak yooyu kii ñu ñëpp benn lañu dañu ànd juboo parce que métier bi sax d'abord daf ko dafa lallu ci juboo mhm. ku ko xamul rekk ci indi ay. te jarul indi ay. mbiru yoreel nga ma ñaata laa la yoreel nangam ji la su ma amee possibilité pour fay ko ma wax la ma fay la su ma ko ah, mu ñal ma ba sàngam ma nangam la. Mm-hmm. Ah, loolu dama gisul lu ci xuloo ci. d'accord nañ jéem màgg. Mm-hmm. nañ jéem a màgg loolu mooy mbir mi nit dangay màgg ci dara. Mm-hmm. nga wow ci koŋ. kon jàpp nga ne tëkkonte yi ci def nii yëpp. waru ci woon jaru ko jaru ko. encore nit ci àddina kenn du ko tëkku mhm. man foofu moom dama koy xalaat rek ne ko beneen yoon daal bu mu tëkku mhm. tëkku baaxul tëkku baaxul mhm. li ñu xamoon ci alxuraan tëkku mooy lan defe naa ñu bari duñ ko def wallahi diine dafay li muy feeñal mooy ñàkk xam bu baax suñu diine parce que boo nekkee di liggéey di sensibiliser nit ñi sensibiliser laa wax. Mhm. waxuma communiquer de. Mhm. dama ni sensibiliser. Mhm. ay nit yàlla na nga fekk yàlla mu fekk nga yeewu. dégg parce que daf ci am solo. ka waxtaan waxtaanal bëgg koo xëcc ci mu yeewu. yàlla na fekk yow nga yeewu yow miy digle. waaw parce que lu ko may day mel ni digle càngaay te fekk du sangu. loolu moom yàlla bu ñu ci yàlla yóbbu. dal nu yàlla defal jàmm lépp lu ñëw nañ ko teg sur la table xam ni ñun ñoo ko ëpp doole bërëg moom daan ko waaye moom lu mu doon doon mbër wax ci boppam boo ko fangale mbër mi daanu wala ah waaw loolu moom lu ci guddal jële di wuti mbër bu daanoo mhm. jaratul muy wax fa nekkee di yóbbante ay galgal galgal ah, kon yow ba nga waree galgal. Mhm. galgal xaar ba yegg suuf di galgalaat mos ngaa gis loolu. question bu mujj bi rek damay ñëw ci lu ci ci lu guy gi wax maam ci wàllum doyen bi en tant que doyen boo doon jox euh, conseil ki nga xam te ne mooy sànneex ak vieux ba lan lay doon. nañ dalal wax ci. Mhm. ñu seet naka lañ koy régler parce que wax amul solo. wax ji amul solo bu fekkee ne danga nekk ci loo xam ni danga waroon seet ci la woon démb ñu bañ la topp ci woon la woon démb. bu fekkee ni aussi tamit xas nga daal ni waaw waajal waaji ba mu waxati ba mu nàngam nangam. serenal dëkk bi li mu laaj mooy ñun amuñu lu ñu dundee déjà nañ ko joytu bu ñuy xeex nañ xeex loolu ñàkk dund. xaalis nga xam ni léegi nee na woon pël eh, ne newul woon méng na mainten numéres mais léegi la def méng na mainten numéres ñëpp soxla ko dégg nga pour faj seen i seen soxla nañu loolu yitteel te ñu bañ du ko def eh, ay affaireu tëkkonte ay affaireu bëree ay affaireu xeex ay affaireu lii ak lii ak lii ak lii loolu tax man su may waxtaan ak nit pour tournage du ma ko tuddal contrat mhm. parce que sénégalais dama koo xam te dafa mel ni yàlla daf ñuy nattu ba buñ ci bugg loon dara sax mu am mm-hmm. dana ci am mm-hmm. kon nag nañ moytu ndax xaalis ne nañ seytaane la d'accord man dégg naa benn euh, soxna soo xam ni dafa ni waa ñoom nag ñoom euh, du ma accuser kenn mais ñoom seen bopp lay koy accuser mm-hmm. kan moo wax nga wax ci suñuy diggante tooñ ak ku tooñul lu ci yoonu nit ñi bañ koy jéebaane ci biir euh, réseaux sociaux yi mm-hmm. nga xam ne ñeneen nañ ci jot ku nekk wax ci mu mel ni kaay leen dugg marché nit ñi ku ci yore sa bool loolu wax nga wax mm-hmm. duggee ko ñi yëy yéet yëy yéet mm-hmm. ñi yëy paañ noonu ñi bugg a encore noonu ñu bugg a yomb aussi tamit jënd seen yomb da daal yóbbu mu mel daal marché boo xam ne nii waaxu dem jël la nga moom la walla jënd la nga moom la nga soxla non nañ ko fay la ñu fay wax ci. d'accord gas ko suul gas ba mu xóot suul ko mu jeex tàkk ñu jubóo ñoom i neen la ñoo bokk seen Cees. d'accord mënu naa wax ne man maa ngi Dakar. sama yoon nekku ci. Mhm. wax la ko muy tontu bu gaaw. Mhm. te ñeme naa loolu. Mhm. ragaluma ko. mais ragaluma aussi tamit wax leen ni samay raq ngeen. vraiment bu doon sama sago ngeen lal wax ji ci suuf. te bàyyi li ngeen koy jébaane. bu ko defee ñun ñëpp ñu juboo la famille revient euh, au normal